TV mooy télé bi bégal sama askan Ladoum TV mooy télé bi bégal sama askan Ladoum TV Ladoum TV Yeah. mbokk yi ñu ngi fii ci box numéro 49 fekk fi nga xamante ne am mooy Ameth Diop bergerie Amadou Touba Fall nekk un champion boo xamante ne mi ngi confirmé ak di euh, wane boppam di euh, euh, wane empreinte am ci élevage Sénégal ci jamono ji dinañ leen wax naka la am Ameth ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di ziar yéen waa Ladoum TV di leen di jox seen waay di leen ne daal leen ci jàmm fii ci box numéro 49 ci bergerie Amadou Touba Fall. aywa mu nekk mbégte ci ñun amet bu baax xam nga ñun bu ñu gisee champion gis xar bu rafet day dundal xol te loolu bokk na ci li nga xamante ni daf ñuy neex lool mu génn premier vice champion maanaam li xamante ni moom mooy deuxième place la jël ci euh, la duwet bii nga xamante ni moom moo am fii ci Mbour félicitations mais présenté ñu ki nga xamante ne mooy champion bi nga bi nga nekkal noonu waaw waa Ladoum TV euh, gannaaw bu ma leen jaajëfalee bu baax a baax di leen di ne kii mooy champion Aliko Dangote nekk benn doom ci Abu Bilal Abu Bilal nekk doomu Saalum yaayam nekk Ngenteli Ngenteli nekk benn doomu Galoya ak euh, benn femelle bu ñuy wax Aïda nekk ci sang u Galoya boo xoolee frère la ci woon ci ñoom Daaru Salaam parce que dañoo jël lim Seexu Soleil boole ko ak euh, magistrat ñu jur papaam ñu jur maamam côté côté yaayam kii ñii ñoo meññ Aliko Dangote borom ciment bi voilà. Aliko Dangote macha allah nekk euh, benn añu boo xamante ne tey lépp lu ñuy xool ci xar macha allah mi ngi ci moom nga gis ni maturation yi mat na sëkk mais taar bi macha allah mais instant bi nii mu ñëw euh, ci foire bi jël fi deuxième lan nga ci yëg. waaw ma yëg ci contentement rek vraiment. mu mel ni mooy deuxième trophée am. waaw moom mooy deuxième ci foire bi fii nekkoon deuxième aussi ci foire Seleka première édition bu Kaolack. ok mooy de première édition euh, foiru Kaolack bi da cay génn génnoon deuxième aussi. moo ci génnoon kon dafa confirmer li nga xamante ne moom mooy yéegum podiumam. loolooy dëgg loolu ok mais tey gii bu mu jëlee deuxième ci foiru Kaolack bi. Mhm. vraiment dañoo ne boo xoolee écartu 45 jours la rek presque. waaw parce que ci fin wu ci fin wu janvier bi la léegi ci lañ wax ne non vraiment bàyyi bàyyi ñu ñëw fii léegi nag. boo xoolee Aliko Dangote vraiment ñun lii bettu ñu woon ci moom mu mu jël deuxième Kaolack ñëwaat kaw euh, ñëwaat fii ci Mbour confirmé jël deuxième ñun sax premier lañ ko doon séentu. Hmm. mais xar bi li ci li son wërsëg rek lañ ciy jot. Hmm. kontaan ci lool ci deuxième bi mu jël. Hmm. mu confirmer ñu que ne vraiment champion la. champion la macha allah ñu ci sàkku ñaan bu baax a baax. Euh, ndaxte vraiment li mu munti nekk rek. élevage moo ciy njëriñu. dëgg la te ñu nekk ay ndaw yoo xam ne yàgguñu door boo xoolee fin 2015 vraiment laa am sama premier laadum nekk ci di ci korkoral ba tey di ci sant bu baax nag sama benn nijaay bu ñuy wax Rane Dieng parce que vraiment juddule champion bu mel nii à l'âge de cinq mois la ma ko jox waaw andi ceeg vraiment yéene bu baax a baax a baax a baax andi ci contentement. jox ma xar bi ma ko ci sant di ci sant staffam bi yëpp ñoom Ousmane ñoom Abdou ñoom laasana bu baax a baax. Mhm. vraiment chapeau à eux. en tout cas ñaan bi nga ciy sàkku waa Ladoum TV. Mhm. ñu ngi la ciy ñaanal li nga xamante ni moom la olof daan wax doomu ñay. Mhm. jarta ñaanal rëy. ñaanal ko gudd fan. bu guddee fan dina rëy macha allah fi mu bokk. fi mu génnee mu commencé yëg pëjam kenn du ne guléet du bett kenn lenn rek lañ la koy ñaanalal mooy gudd fan mm, ak wér yàlla barkelal la ko barke boobu nga fekk ko yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci bergerie bi yëpp te taal ko loolu moom mooy li nga xamante moom la la waa bergerie wala waa Ladoum TV di ñaanal di ko ñaanal mbooleem xar bu nekk ci bergerie yi waaye nag bergerie bi dañu présenté box bi xar yi nga xamante ne ñoo ànd ak kii nga xamante ne mooy Aliko Dangote le champion aywa vraiment boo xoolee ñun su ñun suñ liggéey. anduñ mhm. ci ak liggéey boo xamante ne nii dañuy def quantité. Mhm. ñun ci benn comme ni ma la waxee xam nga rek ndaw boo commencé ci benn mbir da ngay fexe côtoyer mag yi ñu teg la ci yoon. waaw boo xoolee kii moom la ñuy wax Eva. Mhm. Eva nekk benn doom euh, Picasso euh, tonton Lamine jaan joxoon ma ko. vraiment fu mu toll nii mu ngi ci deux portées fu mu nii troisième portam la la ëmb nii quoi. ok macha allah doom la ci Picasso. yaayam nekk euh, benn ligne Biko. ok voilà. ok macha allah mooy femelle bu mag bi. mooy femelle bu mag bi mu mel ni benn tëng laay seen noonu kooku. nii boo xoolee moom laa tuddee xéwal. Mhm. xéwal mii nekk euh, sët ci sët ci même euh, kii sët la ci Zekin. Zekin nekk caatu Aïcha. caatu Aïcha bi ñuy wax Zekin nekkoon ci rente Dieng aussi tout tout. toujours. Mhm. moom euh, moom mooy nekk maam kii quoi. parce que dafa croiser benn femelle ñu jur benn mâle bi ñuy wax Memphis. Memphis moomu moom moo jur kii. ok macha allah kon kii sët la ci Aïcha dem ci kaw ñoom ñoom ñoom am daan. ok voilà ba tey boo xoolee kii kii moom la ñuy wax weer bi. Mhm. weer bi nekk euh, vraiment moom itam cët ci sët euh, kii bajan la ci kii. Mhm. parce que The moo ko jur. mais frère kii moo jur moo jur euh, xewal. ok moom itam sànq am daan la Aïcha. Mhm. kon ba tey ñibbi ci Saalum bi. macha allah voilà ñibbi ci Saalum bi. en tout cas exposition bi rafet na. voilà ñii daal lañ tànnoon ci ci jabaru Aliko Dangote borom ciment bi. waaw ñi ñëwoon présenté fii nii bergerie allah exposition rafet na. Mhm. képp koo xamante ni euh, bëggoon ngaa ñëw euh, ci bergerie ba. Mhm. nan ngay def da ngay ñëw ba Kaolack def nan ak numéro de téléphone bi. waaw képp ku bëgg a ñëw bergerie Amadou Touba Fall bergerie Amadou Touba Fall jafewut a xam mu ngi nekk euh, ci région bu Kaolack boo ñëwee ba Kaolack da ngay jël yoon bi jëm Nioro Durib boo ñëwee ba Lagem rek Ndofane Lagem boo ko génn 3 kilomètres ba jàpp 4 yaa ngi gàppaax ci kaw tali bi laa dëkk. macha allah nekk. mais nag toujours di rappeler gars parce que élevage dafa yaatu je suis toujours presque du côté de Dakar. da ngay gis que ni maa ngi essayé di jongler entre deux points. maa ngi jongler là-bas à di jongler aussi à Rufisque ay xar ñi ngi foofu noonu ay laadum. Gapax nga nekk. man Gapax laa dëkk. Gappaax nga dëkk. Gappaax laa dëkk. ok waaw léegi nag képp bëgg a jokkoo ak bergerie Amadou Touba. ba fàttali nit ñi ne mu ngi nekk boo génnee Ndofane. laataa ngaa yegg dingiraay moo nekk ci diggante bi dëkku séeréer la sama mbokk yaa fa ne. ma am fa sama xarit bu ñuy wax El Hadj am fa xarit bu ñuy wax euh, Gorgui Ndiaye. am fa ay mbokk. wax nga dëgg de ñooñu yëpp sama dëkkandoor <laughs> bëgg a ñëw Gappaax bergerie Amadou Touba boo ñu oowee ci 77 127 64 76. boobu noonu numéro whatsapp la. Mhm. ñu amaat beneen numéro bu nekk ci base bi 75 337 01 60. ok waa Ladoum TV ma leen di jaajëfal bu wér. non fii la rawee mon frère. di leen di présenté aussi sama mafia bi. sa gars sa sa gars allah macha allah. aywa mafia ba nekk nii. waaw lii mafia bi la nekk samay copains yoo xam ne vraiment. macha allah quoi. dëgg la ndeysaan di ñaan rek yàlla yokk diggante bi mu gën a rafet. di ñaan ku ne nekk ci champion ay champion lañ sax. tey jii mais di ñaan ñi gën a nekk champion yu mag. te yàlla gën a rataxal diggante yi. amiin lépp nekk jàmm quoi. vraiment voilà Moussa. <laughs> salaamaaleykum gars yi. di rafetlu tey émission bi. Mhm. waaw tey geen dalal tey ndaanaan koo xamante ne tey ginnaaw tey ba élevage xewlee tey dafa ñëw tey indi ay sujets yi nga xamante ne moom la teg si table bi. tey boo xoole tey champion bi nga xamante ne jongante woon nañu tey kii di Aly Dangote borom ciment bi tey mu manqué empreinte am ci élevage bi macha allah ñu koy ñaanal yokkute ak manoo rek Tinchir. ba ci kaw a kaw mu nekk champion mâle adulte incha allah. amiin merci beaucoup. <laughs> bégal sama askan